شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول mu ne nag li nga xam ne moom lay fàttali ci xutba bi mooy di fàttali ne nit ñi dañoo war a muñalante maanaam ci seen pas-pas si diine ndax loolu mooy li nga xam ne moom la lislaam jàngale muy tegtaloo ay aaya ci alquran te alquran di téré bo xamné ne comme ni ko yàlla waxé caaxaan mënu koo ci kanam wala ci gannaaw yàlla har nako ci lim waxna inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun ñun ñoo wacce alquran ci ñun ñoo koy xaar ma mu ne yàlla dafa wax ci téré bob ne ولو شاء ربك لآمن amana في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين mu ne bu sooboon yàlla ñi ci kaw suuf ñépp nekk di ay jullit mu ndax yonent bi yow da nga bëgg ñépp nekk jullit loolu mënta nekk loolu li muy tegtale mooy ne dañoo war a muñalante yàlla waxaat ci beneen aaya ne walaw shaa rabbuka la jaala annaasa ummatan waxidatan wala yazaaluuna muxtalifiina illa man rahima rabbuk wa lidalika xalaqahum yàlla ne bu ko sooboon mu def nit ñépp ñuy benn xeet maanaam bokk luñ gëm-gëm bokk luñ gëm waaye yàlla loolu soobut ko nit ñi duñ dañ di wutee lu mooy koo xam ne yàlla yaram na ko ndax utee googu moo ci la leen yàlla bind mu ne buñ settantalee ñaari ay yi dañ ciy gis ne tasaaroo walla ute pas-pas utey gëm-gëm utey diine loolu sunna la soo xam ne mook nit ñi dalee ba àddina sosoo ba léegi loolu moo fi nekk kon kenn amut sañ-sañ jóg rek na benn gëm-gëm moo fi nekk bu ko bu keneen gëmut li nga gëm maanaam ñu génnee ko faar bakkanam nangu xalalam loolu amut benn cëslaay du ci diine du ci du ci jikko yi mu ne loolu tax mu ne bu ñu mu ne nit ki amut loolu mante ñàkk comme ni nga xamee ne nit ñi duut comme neex nga tànn ni la yàlla ni ni ngay mel walla fi ngay juddoo ban nationalité ngay am bi loolu nit amut ci benn tànneef dafay too rekk gis ne der bi la am gis ne nationalité bi la am kon mu ne mi ngi fàttali loolu mu ne yàlla wax na ne bokk na wa min ayatihi xalqu samawati wal ardi wa ixtilaafi alsinatikum wa ixtilaafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dalika la ayatin lil alamin yàlla wax na ne bokk na ci tegtale kattanam ba wax ba ñu xalam ci bëggam moo ne yàlla moo bind asamaan ak suuf moo bind seen làmmiñ seen làkk ngeen wutee moo bind seen melo yi ngeen utee loolu boo ko boo ci set bu ci boroom xel settantalee dana xam ne kii ki ko bind kenn la te mooy yàlla kooku rekk yelloo ak jaamu kon nag comme yàlla bind utee googu la bind ci melo nit ñi ci seen làkk naka noonu ci seen gëm-gëm itam ute googu la bind kon kenn amut sañ-sañ ne benn gem gem fii nekk te itam yàlla wax na ne sax ci alquran ne waxal kul kullun yamalu ala shakilatihi fa rabbukum aalamu bi man huwa ahda sabila ne ku nekk jëf ci yoonam yàlla moo xam ki gën a jub alquran di wax ba tey ne وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كن تشنون بن نيون نيو نيك تشي نيوب ولا يينا نيك تشي نيوب واي لول يالا خم لي تشي سيرن بي بوغا واخ رك موي نان ناج مو نيلانتي نك جابلي هانتي تا كو نيك نيك تشي ليغا خم نا موي سا باس باس جيفي جيفي كو لي ام نك موي ن يالا خم كي گنا mu ne bon li nga xam ne mooy li war mooy ñu ut yoon woo xam ne dañ ci booloo di dund di jàppalante di dimbalante ngir tabax suñuy société tabax suñuy réew ba nga xam ne danañ àgg fiñ bugg a àgg te di muñalante loolu alquran a koy fàttaliwaat di wax yonent bi naan ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati alxasanati وجادلهم بالتي هي احسن نكو هوتيل جيم سي يون يالا بالحكمه سي خم خم بو لير اك واد ورافيت تيتام بوي داغي سانتي نغا داغي سانتي داغي سانتي بي غنا رافيت القران وخاتنا ومن احسن قولا من من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين موني القران دا فو واخني كان كان مو غنا رافيت واخ mi ci ki nga xam ne moo ote jëm ci yàlla te di jëf lu baax wax ne mankat jullit laa wala ci jullit ñi laa bokk mu ne jëf ju rafet du xemoo ak mukk ak jëf ju ñaaw bon yow mi nga xam ne yow yaa julli dëgg na nga jëfe jëf ju rafet jikkooxanteeg nit nit ñi jikko yu rafet jëflanteeg ñoom itam jëflante yu rafet mu ne lii daal mooy li nga xam ne war nañ ko fàtte mu ne mi ñuy dénk mi ngi dénk boppam di ñu dénk ñu takkaayoo takkaayoog yonentu yi ak nit yàlla yi li nga xam ne ci gàttal mooy jikko ju rafet ak nooy ci jëflanteeg nit ñi te itam du mooyu seen ayib ak seeni sikk mu ne bokk na ci waxi suufiye ñooñ tasawuf ne bokk na ci jikko ju ñaaw nga xam jikko ju ñaaw ci sa mbokk sëriñ bi mu ne bokk na ñoo mu ne ñooñ tasawuf dañuy wax ne bokk na ci ñaaw jikko sa bët tàbbi ci sa ay bi mbokk mu ne mi ngi fàttali li yàlla di wax na wa inna saata la ateetun fasfaxi safxa aljamila bés bent bés penc ngi ñëw wala ñëw na ba pare sax kon nag jéggaleel jéggale gu rafet wal yaafu wal yasfaxu alaa tuxibuuna an yaxfir allahu lakum mu ne nañ nañ jéggale nañ jëllale mu ne mu ndax yéen itam bugg leen yàlla jéggal leen ku bugg yàlla jéggal la deel jéggal nit ñi mu ne yàlla mooy aj yëram faafu wasfaxu xata yaati bi amri mu tëje xadis abi hurayra bi muy wax ne abu hurayra dafay ñëw mu ne abu bakar dafa mos toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay bu ñaaw jikko ñëw di saaga aboubacar di ko xas di ko saaga waaye ñu gis yonant bi mi ngi muñ di ree aboubacar bi waa ji bërilee di ko di di ko di ko xas aboubacar bi mu tontoo rek gis yonent bi jug di dem Aboubacar dab ko na ko lu tax yaa ngi dégg man toog naa lu yàgg mu may xas di ma wax lu ko neex tontuwuma ko waaye dama gis ne dama wax benn baat rek nga jug lu waral yonent bi na ko sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax tontuwoo ko ay malaaka dama gis ay malaaka yàlla ñu lay tontul waaye bi nga commencé bi nga jëlee di tontul sa bopp rek ci la malaaka yooyu jug dem ndax man ma gis seytaane ñëw te duma ma jekkaaleeg seytaane loolu tax ma jug dem loolu lim ci liñ ciy déggee rek mooy muñalante te itam àndoog nit ñi ci jukko yu rafet muñalante bañ a am li nga xam ne mooy cot loo walla itam maanaam xiis di jëfandikoo doole ngir ne maanaam sa pas-pas moom la nit ñépp war a amee gannaaw gi sëriñ bi mu ne nañ fàttaliku li bay doon wax ne wa kafaani taaha xibban lastu adri man xalaani man mbëggeel ak bi doy na ma faalewuma kuy noon ku bañ walla koo xam ne am na ci man beneen yëg-yëg bu doot loolu mu ne mi ngi sant ñépp ñi nga xam ne jóge nañ ci barab yu fasantikoo ñiy jóge ci ay réew yu sori ñëw ngir dundal guddi gi ci pays baay bi nga xam ne baay dafay wax ne pays la boo xam ne diri na sembaanam ci pays yépp مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق